fay nañ la yaay bay waaw ñu ngi nuyu Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp di fay ñu ñu nuyu di fay ñu ñu nuyuwul <laughs> Chérif Diop Soubène waaw teewaay bi mooy juste xam nga tey moom feetu jigéen ñi la te ko bërëb bi nii Camp Pénal xam ne suñu yaay booy suñu siste yi ñoom ñoo fi ne tout donc ñu bëgg leen boole ci fête bi nag quoi pour ñu sentir seen bopp que ne ñun ñu leen di xalaat ñu leen di bàyyi xel jox nañ leen bopp et tout donc moo tax tey ñu organiser lu mel nii donc pour génnee leen indiwaat leen ci société bi quoi donc euh, Chérif Diop Sabray mënul ñàkk ñu ñoo def seen participation c' est c' ñoo def seen participation comme artistes yeneen yi waaw xool day tooy ah xam nga jigéen moom yërmande rek nga mën a am ci moom quoi donc da nga koy xoolee comme sa yaay bi ne gàllee sa siste bi sa soxna bi nga bàyyi gàlle et tout donc cofeel ak yërmande kese nga mën a am ci moom boo gisee benn jigéen nga xam ne kii dañ ko denc fii amul benn liberté génn comme yow ni nga amee liberté boobu wala bi ni muy am damay marché créé togg bu ko neex ci gàlle bi am bis gàlle et tout moom mënul loolu quoi am na benn temps bi mu fa war a def et tout donc loolu xol day tooy franchement yërmande am na xool tooy na di ñaanal ñoom ñëpp vraiment yàlla jëlee leen fi nu mu gën a gaawee ba pare musal suñu siste yi ci biti ci nattu yu mel nii quoi waaw Mm-hmm. waaye itam mën naa ne presque àdduna bi yëpp am na ay mouvement yoo xam ne ñu ngi taxaw di ko xeex. Mm-hmm. yéen en tant que ñoo xamante ne ay artistes ngeen ay porteurs de di xam nga Cherifou Diaw Sow Brand ku leen dégg sax xam ne seen musique xam na ñoom jigéen lañ gën a farataal. jigéen la ñuy gën a delloo njukkal à chaque fois donc euh, mënuñu ànd ci ci lu mel noonu donc viol yi am xam nga des fois nga gis benn xale bu am sept ans sax ñu violé ko mun nañ ko door gaañ ko wala ñu tëddee ko et loolu c'est-à-dire euh, neex ci xool ñun en tant que artiste vraiment dañuy teewal ba xëy dee dañuy dañuy dañ leen di représenter yéen soxna yi ba xëy bàyyi suñu suñu suñu suñu suñu musique quoi donc way nañ fi lingeer ngir bëggal leen way nañ fi neema yee ngir bëggal leen way nañ fi yaay yaay ku ko xam-xam ne mooy jigéen mooy àdduna mooy soxna mooy lépp donc euh, franchement ñun ñu ngi ak yéen quoi yéen soxna yi franchement waaw <laughs> waaw mais xam nga ci dégg naa ngay wax quoi xam dégg naa moom amul ay sources leer quoi mais bon violence bi moom bu amee du yoon parce que jigéen moom trésor la jigéen nekkul lu ñuy dóor quoi puisque buñ koy jiiñ nag suñu mbokk artistes yi loolu beneen problème la bon information boo xam ne ñun ñu duñ ci avancé comprendre boo xam ne ñun leeruñu duñ ci avancer quoi mais nekkul nekk na lu ñuy ñaaw lu képp koy def en dehors artistique tamit mu nekk ménage ak leneen jigéen kenn du ko kenn waru koo dóor quoi nekk na loo xam dañ koy condamner en tant que artiste en tant que citoyen. Hmm. après hmm. hmm. waaw ñuy waayal le 26 Sorano ñu ngi leen invité ñëpp 26 mars la ñuy def Sorano gars yëpp bëgg nañ presse bi yëpp teew mooy suñu premier euh, salle bi nu jël jëloo nan ko avant Covid bi mooy Covid bi moo ko yàqoon quoi mais bii le 26 mars boobu tamit ñu ngi koy def sargal jigéen. comme thème bi tey lu mu lu mu réunir moo tax ba ñu pendoo gisee woowee dañu ko xaar ñëw def suñu teewaay puisque dañu am fa feneen nag feneen fu nu war a dem mais 26 mars jox la leen rendez-vous site yëpp nga ñëw teew di nga am show Cherifou Job Sa Brain en live and direct merci jaajëf